lijjanti nañu lépp ba fi mu toll nii incha allah vaccin yi. Mhm. dinañ ko commencé ci kattanu yàlla a euh, partir du premier mars. premier mars ban. bii nii nii incha allah ci kattanu yàlla la vaccin yi war a commencé. yan lan ñuy vacciné. ko bi kay jàll na sànq ci Zik FM. Ah si si si le premier mars la ñu <laughs> war a. da ngay draay. barki alxuraan draayuma billaay walaay taala. mais dugg ci kër yi lan vacciné ngeen. ci kër yi de dugguñ ci yi dugguñ ci yi. Ah. léegi. Ah. Ah. léegi dañu ne dañuy xool les les personnes les plus influentes. waaw nit ñi nga xamante ni si yàlla dogal na ni ñoom tey jii bu ñu leen defee benn mbir wala ñu wax ci benn mbir mbir moom dafay barkeel. te président Macky Sall gis nañ ne yow da nga ko jege trop trop trop trop macha allah comme ni nga ko mësee jàppale rek ci liggéey bi. waaw léegi bi ñu waxee nag ci journal bi dafa am ay tur yu ñu tudd. tur yan. man <laughs> de maa ngi bëgg a jàpp. ah sunu ministre yi tudd nu kenn. <laughs> non Bardia non dañ laa non ministre yi xam ministre yi ñoom. Ah. ñoom meeting sax boo amee yéen la ñuy woo pour pour meeting bi am. ambiance waaw. waaye nag ñu feex ñoom ñoo yor xaalis bi de. waaw ñoom ñoo yor xaalis bi léegi nag moo tax ñoom ñu ne. Ah. dañuy xool ñi nga xam ni ay waykat lañu ba pare nit ñi xam nañu leen yow nag danga nga cee bokk ñu ne la premier. ci la ñuy woo ñëpp pour vacciner leen te yow cee bokk. la ilaha illallah. léegi <laughs> ñu bëggal nañ ma jàmm. alaaj bi manipulateur ci nga bokk de ci liste bi kay liste bi kay ci kaw la ne ñëpp ko ñëpp jot liste bi léegi président président kay wax na ko fi mu doon Diouf Sarr ak euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñëpp ñëpp le premier lañuy ñuy commencé ñàkk yi te yéen yéen a war a dem oui ah, ah man barki dem rek laa doon ngénte <laughs> dama wallaay wallaay Sarr dan ma si bàyyi rek man damaa jaboote ndaw yaa ilaha illallah ñàkk ba si ñàkk xam si dara ñoom nañu ñàkk ba pare ba déet déet nee ñoom sañuñu ko parce que il faut nit ñi nga xam ne réew mi xam nañu leen te bu ñu waxee ñëpp leen ci ñooñu lañ koy commencé Cheikh man feex. dër na waaw yàlla dolli jàmm rek. ak man man ma ñaanal jàmm rek. fiir bokk comprimé sax dama ko ragal loxo du balaa. wóor na Serigne Touba amuñu dëggoo man man maa gis suñuy pikir pikir rek laa ragal waxatu ma pikir boo xam ne xamoo fu mu jógee. laa ilaaha illallaah. waaw. ñaanal ma jàmm rek. alaaji ma jot. ah alima lii def dara alima du ko seetaan. alima moo jot liste bi yónnee ma ko. a ah, Alima Ndiol léegi moom moom moom ma lay xeex. ah. <laughs> xeex ma ko ne ko liste bee officiel. liste bee officiel en tout cas liste bi moom yow yaa de ci kanam. waaw ah jeex loolu loolu bàññee dañu ne Doudou Ndiaye Mbengue far ba Ngom. karati yoon moo ci tege. ah El Hadj ah, Mansour ah, Mbaye. déedéet yow yaay jiitu. man man ah ah. daa xaw la wala. <laughs> c'est man de bul tax suba ma dem sama kër ga Tivaouane toog fa jàpp sama. tribune ah, léegi. ci nga de na jënd tribune léegi xool liste bi jëndal journal la tribune liste baa ngi a ah waa mais ñoom lan moo sama tur dañu dañu bàyyi ci Macky Sall. ay Farba lii yàlla na ko njëkk. yàlla na ko njëkk ba ci. waaw baax na léegi ah, ah. léegi. léegi yow xaaral rek de toute façon yow ñoom dinañ la woo directement léegi nga jot benn 33 bu la woo. billaay bu ma woowee du ma leen jël. <laughs> jërëjëf. waaw